mbokk mi na ngeen def. waa ji maa ngi lay ziar. yaa ngi doxal bu baax. waaye sant sant bu baax a activité yi. waaye ñu ci nii rek. xaalis baa ngi dugg. xaalis doo seetlu sant yàlla bu baax. non xam naa ne am nga xaalis bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi leen seen yi ngeen di def. waaw mooy jikkoy sénégalais. <laughs> waaw bu tuuti tuuti rek. su nangoo wax ngeen ne tuuti. sédd leen ñu ci waay sédd leen ñu ci. <laughs> tuuti la ñuy kontaan ci yow bu baax a baax bisimilah ci waxtaan bi. léegi li ma bëgg wax Birame Souleye Diop. Birame Souleye Diop li waa ji génn léegi wax Birame Souleye Diop waxut dara lu aay gis nga nit ñi nañ bàyyi xel gis nga am na yoo xam ne nii nit a politique rek. Mhm. Birame Souleye Diop jege Ousmane Sonko rek moo tax ñu di ko téye nii kenn koo naan waxi Birame Souleye Diop. Birame Souleye Diop lan la wax. Seydou Moussa waxu fi toog ne maanaam. quatre-vingt-dix-neuf pour cent xaw ma quatre-vingt-dix pour cent lañ ñu rey sénégalais yi pour maanaam Macky am li mu lu gën a garaaw loolu kii daa ar daa alerte rek da doon wax rek te lam doon wax ba léegi logique boobu ba léegi Macky Sall ci la nekk. Mm-hmm. ba léegi nii ci loolu lay dox ndax ba mu waxee ba léegi du ma def troisième mandat gisul gisul léegi muy jéem a woote jàmm u salaam. gëlëm su lay jur defut dara nit ñi ci boppam ñoo saytaane bari ay commentaire boo boo bokk ci Pastef daal waxal dara boo waxee daal lu mu tuur tuur ñëpp jël ko di ko ubbi yaatal ko ngandal ko ah nga gis ñu gën a wax lu gën a pire kenn wax dara mhm. ah man man man man nee naa Pastef moom yàllaa ko téyel boppam yàllaa koy sàmmal boppam waaye fekk loo doomu adama la mhm. Pastef xaw ma seey waaye yàqu na bu yàgg fàtte nañ ko mhm. luñ def lu mu tuur tuuti rek buñ génnee kenn ku ne bëgg cee débat ay nit génn fii naan nañ rey diw ah li gën a fa garaaw kay rey yi def nit ñi lu gën a garaaw loolu li Macky Sall yi dafa gën a garaaw. d'accord man dama naan xool manifesté yi jàll. lu kenn histoire boo xam ne jàppoon nañ ne jamonoy Senghor bañ naan quarante am na manifestation yu mas am Senghor rey quarante personnes. Mhm. Sénégal yi bari leen ko doon nëbb. daanaka internet bi moo ñëw nii ak YouTube nit ñi daw ko tàmbali ko xam. ñu mhm. loolu ci àdduna sax mustaam Macky Sall bëgg continuer ci loolu di def loolu lu mel noonu. rey yi ñu rey Sénégal yi la ñu war a wax d'accord léegi léegi léegi fi ma la fi ma la bëgg a fi ma la bëgg a par rapport à ça mooy euh, li ñuy wax ne Ousmane Sonko euh, ci fan yi ñu jëm boo muy yoon dina ko teg loxo ndax lañ doon xaar daanaka euh, matal nañ ko waaye nag xel mu ngi commencé tàmbalee Lambert bi information yi commencé jib que ne gars yi léegi ñu daal koy jàpp li ñu doon xaar mooy xëy na examen yi xale yi di def ñu daal di ci jàll te xam nañ ne parti bi di Pastef ñoo ngi waajal seen investiture la 15 ndax loolu su nekkee lu avéré yëri fii narul taq suuf waaye li ma la bëgg a wax te wax nga jàpp ko bu baax a baax man lu ma la wax dama naan jàpp yenn tay mhm. xam nga am na un jour yaa ngi fi taf photo Macky Sall ak photo Ousmane Sonko ak Khalifa Sall yaa ngi ko fàttaliku ba man mhm. <laughs> ki nga teg ci kaw may reetaan mhm. ko seen président ëllëg nga waroon teg ci nga jël Macky Sall bi nga xam ne bokkul nga koy teg ci kaw nga may loolu xam naa yaa ngi fàtte nga waaw lu mel noonu laa la bëgg a dalal sa xel ci Ousmane Sonko Macky boo fekkoon boo ko fekkoon muy nelaw ngelaw ba yàndoo di gént gént yu neex nga pëkk pëkkal ko ne ko da ngay nga jàpp Ousmane Sonko ak ma bàyyi la nga nelaw waaw daal ma bàyyi ma ma saaraan ba vingt quatre heures sur vingt ma nelaw Ousmane Sonko mukk dañuy sóob rek. Mhm. ci politique lañ nekk nii ci fin ci seen fin lañ nekk. il faut ñu indi ay rumeur ay jéem a teel seen jéem a nax dox ca mayu Sénégal yi. gëmloo Sénégal yi mën nañoo jàpp Ousmane Sonko loolu la ñuy wax rek yow koo xam ni da ko da nga koo àtte première soye dëkk bi jaxasoo ba nga yàq def ni sa nguur moom sa nguur jeexal nga kooku boo ko jàppee te yóbbu ca kaso foo jëm nañ bàyyi seen xel yi ñu fooyee ak aussi tamit di jëm ndox ci xelu nit ñi Macky Sall moom nu muy jéem a xool ab candidat am day jéem a programme nii. pour ci mm-hmm. politique la nekk nii day politique. waaye xam na ne fukki junni xelam xalaatut ne day jéem a jàpp Ousmane Sonko Ousmane Sonko amul lu mu koy jàpp. lii barricade bi mu def ci këram sax léegi tey mu dindi mu neex ko ak mu naqari ko ndax dañoo toll ci fii nii léegi maam Ousmane ko war a génn saakoonte ak Sénégal yi wax leen programme ak fi mu jëm ak deux mille vingt quatre incha allah nit ñi mën koo déglu xam ba xam danañ ko wote wala duñ ko woteel d' accord léegi léegi léegi léegi Benno tey si ngoon président di dalal ndax jàpp nga euh, ndax jàpp nga ne euh, mën nañ déggoo ci benn candidat waaw waaw man man jàpp naa ne Benno Macky Sall da leen a dëgg a tegal ndëgg sarax <laughs> bennoo bi mbokk mag Sall fi indi Macky Sall di ngeen ko xamul rek te cappaandaw ngeen xam ma kan mooy Macky Sall Macky Sall bu signalé gauche droite lay jàdd moom <laughs> xam nga naa noonu la def waaye moom bu kaw la jëm <laughs> moom moom foofu la wutee Ablaye Wade la jëm moom na moom ci kaw lay dem Macky Sall fii nii dafa tegal waa Benno Bokk Yaakaar ak APR rek ndëgg sarax lu doy waar mooy lan mm-hmm. da leen a bàyyi ñu nekk ci troisième mandat candidat bi Macky Sall lay dem xam nga. Mm-hmm. lu mu leen jox ci xaalis na leen liggéey leen Sénégal gars yi lekk ko def ci lu leen neex continuer Macky Sall dafay nekk. Mm-hmm. dugal ko ci tooxi doon yi ba nga xam ne Macky Sall dem na ba xam ne ñii dañ koy jay te li ñu li mu defaroon lu mu tuuti tuuti ñu ngi koy nar yàq. Mm-hmm. mën a xaaral li may fa yow mooy dama leen di bàyyi ba élection yi des ay presque ay sept mois huit mois huit mois ma ne du ma def candidat du ma du ma pose sama candidat. <laughs> ñëw tegal leen rek boo ko defee ñoom seen biir xam nañ ne ci dem parcelle sax mënoo koo gañe géejawaay sax buñ ko cegoon yow yow yow ak yow candidat Bokk Yaakaar yi ak yow moom yoo man yow yow moom yoo xal hmm. bu ngeen demoon élection yow yaa koy gañ yow <laughs> ay waay bu leen ma yokk fit ba ma ma ma man maa la wax noonu candidat bu mën di teg yow yow ci sa bopp boo demoon ak élection moom gañam ñoom <laughs> amatul lu ñu lu ñu kii Macky Sall day fayu ci ñoom d'accord métti yi ñu ko teg ak naqar yi ñu ko teg ak liggéeyloo mu leen liggéeyloo kenn liggéeyu ci bëgg koo pousse rek na ko da ngay def troisième candidat force bëgg naq Sénégal dem na ba xam ne ñii bañ jëm ak moom baaxul mu daal di wàññeeku. Mhm. ba mu wàññeekoo nag nga leen di bàyyi nii di leen jéem a nii rek di jéem a rafetal nii waaye xam na ne gars yi mënuñu am dara su ma tëjee. Mhm. may Karim Wade yi ñu ngi koy tooñ Karim Wade yi bari ñu ngi koy tooñ. Mhm. xam nga lu ñu koy tooñee. ñii naan candidat lay doon ak day nekk président Karim ba mu geddee Sénégal yàgg na Karim li jëndiwul sax Sénégal. bañ ko fi toroxalee tëj ko fi ba génn dem Qatar la pare ci Sénégal fii maa ma jàppal bu baax li ma dox élection yi xoola bu ñëwoon Karim Wade sax ñëwal nekk président Sénégal sax day daj élection ma Karim Wade xoola li jëndiwul sax jéem a jaar fii hmm. léegi nag waa waa APR ak waa Macky Sall leen lañ bëgg def pièce boobu lañ bëgg a tegal waa Pastef te bu loolu du jàll mooy dañoo bëgg dox ci maayanu Sénégal yi ne maanaam Khalifa Sall Karim Wade dañuy bokk bu buñ demee ba cappaandool ji ñooñu bokkuñu buñ ne Ousmane Sonko bokk nit ñi ne maanaam yaru na maanaam fekk maanaam bokkuñu kaa mhm. Ousmane Sonko sukkandiwut ci ay Khalifa Sall sukkandiwut ci Karim Wade élection yi incha allah rabbi da ciy bokk bu yàlla doo ko dogalee mu nekk président mu nekk président waaye bokkut ak ñoom ay kaa bu dee Karim Khalifa Sall mooy bëgg a bokk di waaye Karim Wade moom li sax Sénégal man maa la wax lii <laughs> Karim Wade ku ne ay papaam ak ku ne koy woo di waxtaan ak moom ci Macky Sall ak ñëpp waaye Karim Wade ji bopp moo Sénégal nit ñi nag ñu ngi koy teg di ko jéem a Karim président Karim naa nga ki day ñëw Karim pare na ci Sénégal moom lee mu nekk moo gënal foog nekk Sénégal bi d'accord ok merci merci merci merci merci beaucoup pour la participation kàddu yi euh, rafet na te am na solo waaye itam commentaire yi nga xamante ne gars yi ñoo ngi koy def ci chat en direct bi diggante Lat Degen Ndoye Ibrahima Playa Abdou laxaat juuf am na solo itam xam naa ci kanam naa ci dikkaat su ma jëlee appel ba noppi salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. di la ziar bu baax foo ñu woowee. ñu rewati France. naka waa France. ñu ngi jàmm doo ñu baal nga yokk kàddu gi tuuti. waaw ñu ngi jàmm baax sant yàlla baax alhamdulilah. Hmm. aja ban gis-gis ngeen am euh, par rapport ak euh, li nga xamante ne moom la waxtaanee possible arrestation bu Ousmane ko laata wala après sax investiture euh, bu parti bi di Pastef ndax yaakaar ngeen ne loolu mën naa am ak su amee yan conséquence lañ koy mën a natt ci biir réew mi. Mm, benn benn question bi maanaam ci arrestation Ousmane Sonko bi nga wax noonu. Mhm. loolu moom c'est impossible sëñ bi. ah donte décision de justice wadd wadd na di. décision wadd na waaye loolu c'est impossible de xam nga ni moos. Mm. kan mooy am xelam xalaat bay jàpp Ousmane Sonko di ko ci kaso ba. ak li fi xewoon passé. Mhm. kan moo koy nangu. ah Ousmane Sonko mi nga xam ne moom la ñu yaakaar ñun jox ko lépp. Mhm. tànn ko. mu nekk suñu candidat. Mhm. ñu ne dañ ko dugal ci kaso bi <laughs> kon day xam naa kon <laughs> ñëpp dana dugg kaso bi laa yaakaar kon incha allah su boobaa kan moo koy ñime kan mooy dem jëli Ousmane Sonko di ko dugal ci kaso bi xanaa kooku moom moom dafa dof ma xalaatu ko de ma ngi xalaatu loolu de. Mhm. kon Ousmane Sonko incha allah ci kàttanu yàlla mooy nekk suñu candidat. mooy nekk suñu président deux mille vingt quatre. keneen. d'accord léegi léegi su ma ñëwee. ku yebu nag. Mhm. ak ku rep. ku rep. Mhm. ba taxaw ci kër Ousmane Sonko rek ni da nga jàpp Ousmane Sonko. Mhm. loolu mooy sa génn àdduna. <laughs> ki yaakaar.